bokk jullit yi bokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu seen mbokkum taalibe Moustapha Guèye indicatifu Cheikhul Khadim di taalibe sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba Mbacke radiyallahu taala anhu di soppeeb sëñ Mbacke moom maam soxna loo Jóob Taïf taala anhuma tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Tuubaa saa nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér tey roy Cheikh Abdou Lahad Mbàkke ci ak dëgg radiyallahu taala anhu tey encouragé sëñ Maam Mor ba Cheikh Mamadou Mourtada di ko ñaanal yàlla mu yokk fanam te ànd koog bépp buntu xéewal boo xam ne doomu aadama da koy yittewoo te yàlla mën ko ubbi yàlla na ko ko ubbil boole koog salaamatan wa aafiyam ngir kemtulaayu kàttanug yéene jëm am ci liggéeyu Sëñ Tuubaa bii yàlla defal ko ju kawe njortam ba yéene ji nga xam ne sëriñ Murtada Mbàkke waajuram wa amoon na ko ci toolub lislaam bii tàmbali loon ko boppam ba xëy ñibbi ba sàq mu wutu ko ca yal na ko ci yàlla defal lu kawe njort te ànd koog yoonu murid yëpp tey ànd ak sëñ Muntaxa it ci mboolem li nga xamante ni si mi ngi koy bay ci toolu lislaam seen ormay Tuuba tey dafa dikk tey ci waxtaane jikko yi nga xam ne moom lañ mën a ànd sëriñ Tuuba ndax sëriñ Tuuba jikko rek mooñu ñu moom ngir jikkoom ji nga xam ne yàlla def na muy jikko ji nga xam ne moo nekk ci bi sallallahu alayhi wa nekk ci moom tam nekk jaamu yàlla boo xam ne yàlla daa wàccee ci moom yërmande yërmande joojee nag képp ku nekk ci ak ronam tey topp ndigalam doon jullit xaqan yërmande joojee mën naa wàcc ci sa kaw ndax jikko ji ñu fas ne waxtaan dafa bokk ci jikko yi nga xam ne koy ànd ak sëñ Touba da nga koy dindi ci yow ndax sëñ Touba ci boppam ña daan ànd ak moom te fekke woon jamonoom na yonente bi doon ànd ak saaba yi nga xam ne daan ñëw dikk ci moom ne ko dama bëgg xam luy tax ma mën a am ngërëmal yàlla mu ne ko bàyyil nangam fekk lam koy bàyyi loolu mooy sikkas kooka sëriñ Touba yàlla da ko joxoon kuutaay loolu ci yonente bi ba tax na ñoom àndaloon kenn ku nekk ak lam la daan defloo bu ngeen gisee ni xew ci jamono nga xam ne léegi dañuy xeebante ci ay askan ak di réyalante ci ay askan ñuy jàppe seen bopp ne ñooy sangu ñenn ñi wala ñooy jàpp ne ñooy buuru ñenn ñi loolu sëñ Tuubaa ko xeexoon ba jëlee ko fi kon nag loola waratul si li ñuy wax naan ay géer rek ay géwal ak ay tëgg ay ñeej yooyu moom sëñ Touba mosu ko incarné mukk moo tax kenn ku nekk la nga jàppoon ne moom nga sëñ ba daa jël leneen la keneen doonoon jox la ne la del def loola fekkee da nga ne man kat géer laa waruma létt kenn wala waruma feesal kenn num xar wala waruma def nangam jàpp na yow koo ki koy def yaay boroomam wala yaay ab yaay yàllaam loolee nga ko daan xeebe sëñ Tuubaa def ko daan jël di la ko def loo daana jël ab der jox ko ko jàppoon na ne moom moo supérieur ñooña ne ko awal ma ko jëlum xar jàpp ne jël koo xam ne si jàpp na ne moo gën ña koy def moo fees loo ko xar ma ñu jàppoon ne ñoom ay tëgg ci boppam mooy ñi nga xam ne dañ leen a wutal askanu boppam ber leen mu jël ka nga xam ne jàpp ne ne loola waru koo def mu di ko def lool loola kenn ku ne daal daa jël sa yëfi moroom jox la pour wan leen leen xeebante ci askan amul njariñ yooyu yëpp nag ay jikko yu ñaaw a koy apporté ci nit muy nit ku jàkkaarloog moroomam jaamam jàpp ne da koo gën ba tax mu di ko def loo yenn yi ba du ko naw loo teñ bokk doon jaami yàlla yow nga jàppe ko sab jaam loolu gis ngeen ne am na kum ci yeyoon ci njëriñ ba amee ku ñëw ca moom ànd kenn ne ko kii kat sëñ bi sama jaama dama la ko bëgg a jox addiya sëñ ba tudd yàlla julli ñaari rakka ne ko soo ko moomee day yaama moom te yaa moom it suuf seeg asamaan si loola gis ngeen ne sëñ Tuubaa am na mag bu masaa def loolu dikk ci moom jébbal ko mbokkam moom àndaloon ne ko kii sama jaam la sëñ ba tontu ko loola kon loolu existé wul ci sëñ bi loola lépp jikko ju ñaaw a koy waral jikko jenn rek moo existé te ci ñëpp la waale muy jikko ju rafet jikko jooju bu yonent bi dikkee moom la jëkk a wax ne li tax yàlla gënale ma ak yéen def ma yónent mi nabi yàlla mursal def ma bi mujj a yónni du yónni beneen wàccee ci ma alxuraan loolu lépp du dara lu rek man ma war a ñëw andi jikko yu rafet yi jële fi jikko yu ñaaw yi innama bu'istu li ma makarimal axlaaq kon nit ki ci jikko lay gënante ci jikko lay yéesante waaye du forma doomu aadama bi ci loxo yeeg tànk yeeg bopp beeg làmmiñ wi ndax loolu ñëpp a ko am te loolu yi sëñ Tuubaa jàngaloon nañu ne ku xamoon dëgg-dëgg boppam kenn du jàpp ne kenn yaa ko gën lay tax nga jàpp ne diw yaa ko gën ñu dem ba jéggi siraat say jikko jàllale la nga jéggi gis keneen ay jikkoom téye ko ba mënta dem bu boobaa nag yow nga mën a taxaw ne ko kat yow mii maa la gën waaye feeg àggagun foofu kenn na boobu naa ko ndax doomu aadama kat sëñ Tuubaa nee na li koy sas ci toq toq ndox la ku ratax gu xasaw goo xam ne sii ku laaloon tey da ngaa raxasu ji te seet lay mën a dindi xet ga ci xeeti parfum nga def ko bu laale ci sa yërit da koy dem fóoti te doo ca mën a julli nee na loolu mooy sas doomu aadama te nee na fu mu na toq ci biir ba yàlla nar ca lam ca nar ba téye ko fa lu yàgg ba formé ko jaarale ko ci lumbu deret mujj mu defal ko der mujj mu defal ko yax sampal ko roo ba dat ba nga xam ne ci la war a génn ñëw ci àddina yàlla dogal ca moom loola nee na bu dikkee ci àddina li muy àndaaleel képp ko laal da nga raxasu ji muy sobe si nee bu fi ñëwee tamit ba ba muy mënal boppam lépp lu mu def ko ko laal raxasu ji nee na loolu mooy nit nee na su demee nag ba nga xam ne nag jàpp na ne mën naa dem ak boppam biiru boppam bi yàlla am na lu mu ci denc loolu lépp lu lekk foofa la koy réformé waata defar ko lenn lu nekk beru la war a génn ci bakkan génn ci bakkan la war a génn ci leneen génn ci leneen nee na yooyee yëpp mi ngi ànd ak nit ki di dem te lenn loola ci loola ci laal nga raxasu te bëggoo ca gis leneen nee na loola mi ngi ànd ak doomu aadama bi nee na loola it kon bul jàpp ne da ngaa kenn ba loola wàcc na la nee na nit ki bu demee ba génn àddina it ban denc ko ci bàmmeel ñetti fan bu fa defee am medd lay doon bu ñu woon bàmmeel ba képp ku ngelaw li wal ba mu agsi ci yow da nga daal say bakkan te mën na laa indil feebar loola yi kon kenn gënu ca kenn kon daal lees di gëne mooy la yàlla tàggeewal yonent bi wa innaka la'alaa xuluqin aziim bind naa ci yow def ci yow jikko joo xam ne dees koy roye ci yow nga xam ne ku ko réewul ci yow rek doo mën a bokk ci ñu baax moo am nag jikko joo xam ne dana waral ñaawteef yu bari nit di ko def te dana waral it ñàkk jàmm muy jikko joo xam ne moom la ñuy wax njëstaw di def dara te yàlla taxul looy def na yàlla tax bu ca bët ña din ña tegoo it bañ di ko wax na fekk yàlla tax ngay def loola waaye mbindeef mu tax ngay def dara bis boo ko defee bu yàggee loole yàlla dalay lay bàyyi kooka te kooka it du la mën a fay moo tax bisu pénc ba lëgee yàlla ne la yaa def nangam nga ne ko waaw mu ne la waaye taxu woon ka tax taxoon nga di ko def fay nañ la léegi nag leneen amalatuma la ko yàlla nañu yàlla musal ci loola. da gis nit koo xam ne si boo gisee li ñuy wax soppiku nit kuy soppiku nit koo xam ne si ci biir soppiku googu sax am na ñu koy tuddee dikkile muy tey da ñëw weex bu subaa nga ñëw ñuul kukk gannaaw subaa nga ñëw soon gannaaw subaa nga ñëw nga xam ne benn couleur mën na si la ko siise ne couleur boobu nga yor nga xam ne fu la waay mën na gis rek gis la couleur boobu loolu dafa am ñu ko yàlla jagleel da nga gis koo xam ne tey jii mën naa gis nit bëgg ko lool simmiku léppam ci kanamam façanteeg moom kóllëre dégg nga kooka it jàpp na loolay dëgg ci moom ngeen dex tuuti xolam naqari ci yow mu xëy xëy loolu ñuy wax dikkale ji ko ñëwal ko jekk-jekk rek ne kërëj nga nuyu ko mu fay la fay gu gàtt wala mu bañ laa fay wan la xar kanam gu tàng jër su ko defee nag léegi fekke la ngeen njëkkoon a wax fasante woon ngeen kóllëre waaye kër kër kóllëre googee ngeen fasante woon moom fas ga da caa deful pas-pas ndax boo ci deful pas rek moo ñaw ñaw xotti ko boo fasul wëñ gaayam lu bën bën ya bari it boo xëccee bu ca wëñ nga rombee da koy rombaat mu ubbi ko waat dong bàyyi fa bën bën ya loolu nit ñi amul kóllëre wala nit ñi nga xam ne dañuy wax dañuy fas kóllëre te amul luñ ko pas-pas pas-pas bu wóor muy pas-pas boo xam ne pas-pas la boobu yàlla rek ay tax ku ko ci amul noonee dong lay mujj koo xam ne nag soo bëggee ñëpp yëg ko soo meree it noonee la ko ñëpp yëge diw de tey dama ko nuyu ma fayu may bakkan diw de tey dama ko gis waaye dama ko nuyu fayu ma diw de tey gis na ma waaye na ma nuyoo baaxul diw de tey wax na ma lu ma naqari yooyu ay xeeti mbiru la yoo xam ne nit ñi dikkale ñoom ñoo koy faral di def waxuma laal nag boo xamee ne ñoo xam si ay famille lañ moo tax yow bu la yàlla taxee jóg nga bëgg di roy yonent bi ci lu baax boo dajee ku mel noonu da ngay sonal sa bopp su ko defee ñooñu aw niir rek la ñu doon niir niir mën na la tiim ba nga defee ne taw bi daana sotti ko tey mu jékki-jékki ne phrase daal di xeddiku su ko defee nga gis mu weexaat tàll am na ñooñ jikkoy niir jooju lañ ko yor ñooñu tey seenu bëgg duñ ko limité seenu bañ duñ ko limité moo tax coppi ko yooyu nag mat di moytandiku ndax képp ku koy def waroo fasanteeg kenn kóllëre ndax koo fa kóolarte ba mu jël léppam jox la boo legee foofu yi dong lay mujj te am na ñuñ loolu rek mooy seen jikko te loolu ab murit waru ko mel waaye non seulement murit waru ko mel waaye dadul jikkoy jullit loolu ñi nga xam ne bokkuñu ci lislaam jikko jooju moom lañ ko gën a xamee te jikko yooyu nag ab murit wala ab jullit la ne ko war na ko ëppale boppam ngir di ko bañ a roy ci ñi nga xam ne ah, ay nit seytaane lañ moo tax bis boo demee ba mer nga xam ne mer nga na ngay tëdd bu la fekkee duju na nga toog bu la fekkee taxaw na nga taxaw bu la fekkee di dox yonent bi kenn gënu koo xam lu baax ndax lenn lu la fekk nga di ko def te jëloo contraire ba def ko rek jooya mën na la caa fekk ndax nit dana la wax léeg-léeg loo naqari seytaane ñëw ruux la ne la tont ko nangam nga tont ko loo xam ne si yow da koy tontu ji biir le ba sa xol sedd te xamoo ne ñaari nit yuy xuloo ku ca wax dara moram ja ba sa xol sedd ci biir mer mi rek defal nga jafal nga daay goo xam ne que nii dana yàq loo xam ne si duutoo ko mën a amati mukk ci àddina moo tax biir mer ku ci wax nit lu ko naqari ba sa xol sedd cee naqar wa am nga loolu naqari da am def nga def nga lu naqari yàlla te def nga loo xam ne si bu ëllëgee duutoo ko mën a réparer ba mukk ba mukk ba mukk ba kon nag nit ñi day leen maîtriser seen bopp te ñu roy ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ Tuubaa day ca loola nekkoon sëriñ Tuubaa day kóllëre ko mu ko masaan fasal dana ko wóor ne ko ne kii du ko fekk te dana ko wóor ne kii am na pas-pasu boo xam ne si mën naa fas kóllëre gi waaye du fekk koo xam ne nii am miir a koy dugal ci mbir wala ay nit dugg ci dara mu dugg ci dara bu ëllëgee sa doxee ñaari mètre mu jekk-jekk loole lépp mu génn ci sëñ Tuubaa dafa sante ku la rek ku mel noonu kon képp ku gëm sëñ Tuubaa da ngay fa te loolu dafa yaatu nit koo xam ne mën nga koy xam démb ngeen di am jàmm di waxtaan mu ubbil la boppam ubbil la bunt yëpp di la war téléphone xëy xëy déggatoo ko xamatoo ci moom dara bu yàlla na too nga dox ba yem ci moom mu wan la kanam gu tàng goo xam ne wala kanam gu tëju goo xam ne sii yow ci sa bopp sax da ngay jaaxle te mën naa doon ay kilifa mën naa doon nit simple yi ñuy wax ay nit simple waaye loolu lépp dafa nekk jëf ju ñaaw jëf joo xam ne que nii dana taxit nit joxanteeg nit rendiw dem ba mu yàgg mu yëg loo ko naqari ca digganteeg moom mu foosi rendi booba te loolu lépp ci jikkoy naafiq la bokk dana taxit nit am lu mu war a yëkkati dimbalee ko nit dem ba ci biir am lu ko gaar ca kooka mu ñaaw njort ci moom xëy xëy ndimbal loole mu xëy bàyyi ko fekk diggoon na ko ko ak yu baree baree bare yoo xam ne si lii may wax dana ko faral di indi nit nag bu wóoree ne amoo kàddu ci sa kër amoo kàddu ci sa bopp amoo kàddu ci say mbokk deel wattandi ko wax deel wattandi ko it koo gis song ndax nit ki bala nga koy dugal ci sa bopp da nga koo war a xool ba xam ci ay jikkoom moom it ma xam say jikko waaye doo gis dara rek ne sa baax ndax gankat dañ na jikko moom du gën a ndax fi ne nit ki mën naa ñëw nekk raykatum nit comme nekk lëjal leen ba xëy ñu génne ko dëkk mu jëkk-jëkk na joox ca sab dëkk nga gis ko ca col ga wala ca wax ja rek nga tëb song ko def ko ab xarit bu ëllëgee loolee mu eh, ko jële woon foofee mu jëkki-jëkki wan la ko nga daal ne ah man de xamoo nii la mel su ko defee ñëpp naan la da ngaa waroon a tàggoo loolu ko mën a maye mooy tey tey doy na conseil boo teyee ci àddina rek lépp dana baax su ko defee yow mi nga xam ne nag yow yàlla bindewu la loolu boo dajeeg ñooñu li ma lay dénk nanga yor jikko ju mat ja sañ Tuubaa yoroon nga xam ne moom dafa sante kóllëre mukk ku koy fecc boo gisee ku mel noonu bu la yëkkatee bul nangoo féete kaw dee limité sa bopp ci lu bari di sóoraale li nga xam ne mooy ñëw ëllëg man am na ci ñoo xam ne si tey jii bu fekkee da nga yor jikko ju mat jikko ju rafet boo yàggee jonjoog ñoom ci loolu bu yàggee mën nañ laa wàll te wàll googee bu la ko wàllee bu yàggee la nga jotoon na am dañ koy yàq moo tax sëñ tubaa daan jàngale fulla fulla nee na du kanam gooy gaññi wala kanam gu tàng waaye nee na lépp looy def fu ci lu baax yem na nga fa yem lu baax moom baax na waaye sëñ Moussa Massamba daana wax ne lu baax lu mu baax baax bu la ci yaraa nga ne day fekk man nit ki fu la yem yem ko foofa te yéene ko lu baax yow daal li la war sa diggante ak moom te yàlla di ko lijjanti ba lëgee mooy sa xol bii waaye nag bu dee ci saaxir sii ku la romb bu la nuyoo fay ko koo rombit nuyoo bi ñëpp bokk nañ ko wax asalaamaaleykum su ko defee nag boo ko bayee jox ko distance noonu bis bu la mbasee ngelawal kese la fay fekk wala place bu widd waaye boo ko ñooxoo ba mu ëpp bis bu la mbasee da nga daanu ci kàmb kon nit ñi nga xam ne ay ngistalkat lañ nit ñi nga xam ne ay dikkalekat lañ ñooñu ñooy warkat yi rek lu ñu la wax tey suba mën nañ cee génn luñ la mën a yéene te kaw néew doole wala jàpp na ñoo la gën ci dañ la koy yéene waaye bis bu ñu demee ba loolee dañ mbaraalum kiir laay moom ñëw wóor na leen ñoo la tane wala wuñ la mën nañ laa bàyyi ba faw mën nañ la bàyyi ba faw am na kook bu amee yow jàmm rek daa jàpp ne maanaam daf laa tane am na kook bu amee jàmm rek daa jàpp ne ah yoroo dara waaye nit ku baax dëgg yaa ngi koy xam ci muy ànd ak ku mat ànd ku baax ànd ak ku yàlla dogal ci moom la muy dogal te la muy dogal ci moom loolu amu ko mu ànd ak moom yéene ko waaye nit ki am dara it ñi nga xam ak baaxam ci mu am dara nangoo lëkkaloo ko xam te yàlla ko teg lam ko tege loolu bu amee rek kenn ku nekk sa jikko ju baax dana mën a feste yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la daan àndeek nit ñi daawul xeeb kenn ci alal waaye daawul naw naw kenn ci alal nit du soli sagar bag ku am alal tooñ la nga ñëw nga néew doole tax mu jox la tooñ la déedéet yow mi am alal boo amee tooñ boo tooñee mu jox la tooñ nga moo tax mu daan wax na nit ki na ngeen koy dimbali seenum xarit ci bu tooñee ak buñ ko tooñee ñu naa ah, buñ ko tooñee dama des na ko dimbalaay bu tooñee nag xamuñu nuñ koy dimbalee mu ne na ngeen ko wax dëgg kon jikko yooyu képp koo xam ne yaa ngi gis ne mi ngi jeex ci yow xamal ne jikko yónent baa ngi wàññi ko ci yow te jikko yónent bi ku mu wàññi ci yow rek sa des na te lislaam moom ku des rek boo ne am murit ci biir lislaam it nga xam ne sëñ Tuubaa moom yónent bi doo nga la tegoon tànk fu mu mas a teg tànk mu teg ko fu mu mas a teggee mu teggi musu koo moy ci dara jikkoom la yoroon xarfan bi xarfin kon na ngeen di moytandiku nit ñi nga xam ne ay dikkalekat lañ nit ñi nga xam ne ay njëstalaakoon lañ nit ñi nga xam ne ay warkat lañ ñetti jikko yooyu yenn jikko yeesu leen warkat ak njëstalkat ak dikkalekat ndax yooyu jumtukaayu seytaan la yoon jullit mënta mat di ànd ak jikko yooyu waaye ab jullitit mënta ànd ak jikko yooyu bëgg a ànd ak ak tànneef ndax loola képp koo àndal koñ tànn da ko war a jëli ci yow kon mbokk yi ñu ngi taxaw foofu ci seen ormay Touba di leen jox dig daje ci beneen numéro wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf